Euh, euh, moo di Sipres euh, entreprise privée la dafa def une pour gagner des bénéfice donc war na def population yi nga xam si ñoo am foofu dans de bonnes conditions boo xam si noonu lañ fay nekk léegi nag moom moo war a na def saytu nan la ndoxam taw mi jógee foofu ci cité nan lay def ba raccordé ko ci li nga xam si dugal ko ci li nga xam si moom la xam moom la état def pour état ak ONAS jël ko yóbbu loolu nag amul moom dañu créer benn bassin de rétention maanaam fu ndox di taa ab déeg déeg boobu déeg boobu déeg boo xam ne si dafa ubbeeku fàng ci ci asamaan si problème lay indi mbirum wér-gi-yaram ak mbirum environnement parce que ndox moom bu taawee rek te kenn jariñoowu ko problème lay indi te bassin de rétention da nga ko wurta def sax ci biir dëkk bassin de rétention ca àll ba nga ko war def loolu kon bassin de rétention kenn waru ko def fii waxatuma la nag fii nga xam ne fii ak cité la yëpp dañ tali te route nationale moo fi nekk loolu moo di premier euh, sama premier constat ni CIPRES moom moo war na def seet saytu ndox yi nga xam si moo jóge ci cité nan la koy def ba yóbbu ko ci canal bi nga xam si moom la état def mais pas mu di ko defal un bassin de rétention fa teg leneen li li ma constaté moo di pente naturelle ndox mi maanaam bu doon buy dem nii la war a jëm mais ñoom canal bi ñu def fii ñoo ngi ko def fële ca kaw kon nag ndox mi mënut a yéeg ndox du yéeg ndox day wàcc donc loolu problème la léegi bu ndox mi di wàcc fii ma nga jëm ca canal de l'ouest bu nga xam moo nekk fa wetu imprimerie nationale mais léegi bi ñu defar terre bi bi ñu dikkee ñoom dañu fàtte woon ni bi ñu dikkee ba jub raay bi dañu pour autopont bi ñu bi ñu waroon a def fàtte nañoo jël l'existant quatre-vingt-dix mille volts bu Senelec bu jaar foofu bu tiim raay bi te quatre-vingt-dix mille volts boobu ñoom war nañoo euh, euh, tooj raay bi un mètre cinquante oto yi camions yi fa jar quatre mètres cinquante ça fait six mètres six mètres oto bu taxaw tali ba ca kaw euh, da ngay électrocuté quatre-vingt-dix mille volts yi lay jël ba ñu xamee loolu lañ ne kat ñun mënatunoo dem ñun tourner daal di def benn es jaar ci suufu raay bi mais suufu raay boo ko kiiyee da ngay tiim canal ba nekk fële kanal bi ci sa kaw lay nekk lii ci sa kaw lay nekk lii ci yow bas fond ngay nekk bas fond boobu nag pour nga évacuer ko benn canal de l'est ba nekk fa wetu imprimerie rek nga ko mën a évacuer te 300 mètres la nekk digganteem ak foofu boo jëlee une pente de un pour cent di nga wàccaat 3 mètres 3 mètres mooy 4 yi nga wàcc ça fait 7 boo demee yaa ngay jaar ca suufu canal donc canal ba dootu la mën a jëriñ mënoo fa dem sotti fa ndox donc problème enjeu bi nekk foofu léegi nan la ñuy def ñoom xamatuñu plan sur le plan technique solution technique amagul foofu léegi dañ ni jël moto pompe bu nawet jotee ñu teg fa kenn koo xam si en permanence la fay nekk bu kii muy pomper di sotti muy dem ca kii di raakol ko ba ca canal te loolu di solution du solution durable ki nga xam si moom moo defoon projet bi moom la ñu war a woo notamment l'APIX ni ko kat yow yaa def fii ndox mi mi ngi takk kooku maire yi ñoo ko war a léegi doo dikk bët suñu kii te d'ailleurs maire kenn yoru ci benn document man dem naa fi ñoom di leen laaj document terre bi amuñ ku ko ci yore donc ñoom dañoo dikk rek liggéey dem seen yoon ndox mi nag léegi population yi waa pati lu ca mën dem ñoo ñoo koy jël leneen li ci des moo di boo jëlee foofu nga bëgg a wàcc Euh, canal ba dootu la jël doo ndox mi du yéeg fii bu dikkee day stagné donc problème yooyu yëpp dajaloo moo indi lii ñu nekk tey loolu nag il faut ñu seet les principaux ressources gaz bu fi nekk boo xam si Petrosen moo ko fi def foo nga jër rapport ak Petrosen boo xam nan ngay jaare ci suufu gaz bi te boo jaalee ci suufu gaz bi pant ba ngay defaat xamoo di nga nekk ci suufu canal bi war a jël ndox même bi